Euh, jeexal tey nag ndaje mu am solo boo xamante ne dañ si doon waxtaan lu baax ci li nga xam ne mooy vaccin ak vaccination kon la Covid 19 feebar bu rëy bi nga xamante ne dafa lëmbe àddina bi te jeexagul ba léegi. mais gis nañ ne dañu découvrir li nga xam ne moom la wax ne moom daal moo mun a fexe ba mu jeex fi waxuñu ko ci nasaraan mais fexe ba suñu économie jógaat loolu mooy vaccination contre la Covid 19 donc euh, partenaire bi ñuy wax euh, office international euh, pour la migration moom moo ànd ak CDC Afrique ànd ak OMS UNICEF PNUD ak yeneen ñëpp pour gën ñoo jàppale chef yi mais dama buggoon rek wax ne loo gis rek. dëkk euh, ci yow en tant que dëkk moo am solo te loolu dañuy euh, gërëm di sant bu baax ñi nga xamante ne ñooy suñu njiitu réew yi nga xamante ne dañoo dem autour de l'Union africaine autour de son excellence le président la République du Sénégal mais président en exercice donc de l'Union africaine wax ñaax dëkk yi ba nga xamante dañ leen ne na ngeen fexe ba teg ay plan yoo xam ne tey di ñaq bi na mën a wasaare ñu wasaare ko ba mu gën a gën a ci population ñun ñi nga xam ne ñooy yor wàllu ko docteur bu ñu xaarati rek nit ñi di ñëw ci ñun ni ñu ko defee ci euh, weer yee passé nañu gën a jege population yi gën a fexe ba nga xam ne parce que disponibilité vaccin li ñuy wax vaccin vaccin bi ci boppam moom am na fu mel ni Sénégal ak dëkk yi ko yëpp am na fi li ñu war a gën a euh, xeex mooy li nga xamante ne moom la ñuy wax te nekkul lu baax ci vaccin bi loolu tamit ñun foog ñu wut ay jumtukaay foog ñu ànd ak ñeneen ñoo xam ne ñoo ñu gën a xam société bi gën a waxtaan ba nga xamante nit ñi dinañ ñeme ndax yaakaar naa loo ñeme rek duñ ci mën a dem wax nañ tamit ne ñu ngi gërëm bu baax partenaires yi nga xam ne ñoom ñoo ñuy accompagner mais surtout daal ci li ñu insister comme am nañ vaccin bi comme fi mu nekk ni jumtukaay yi surtout chaîne de froid ku nekk xalaatoon nañ ne fan la ñuy def vaccin yi ay vaccin yoo xam ne dañoo laaj sedd bu am doole loolu dëkk yëpp presque am nañ ko fi mu ne daal bu ma ko fàttee yéen ñi nga xam ne ñooy acteur de la presse et de la communication ngeen jàppale ñu ci li ñuy wax Euh, mi ma gën koo waxaat mooy rumeur yi nga xamante ne wax li nga xamante ne baaxul autour de vaccin la vaccination li ñuy wax rek daf ñuy gën a tardeel ba nga xamante ne ñun duñu mën a vacciner nit ñi feebar bi nekk fii di lëmbee dëkk bi te feebar bi yemul rek ci feebar feebar boo gis mu yàgg lool tey wàllante li muy def ci lu gën a euh, euh, jaaduwul mooy dafay delloo économie gannaaw tey boo gisee tey ñi ma wër ñu ngi toll si juróomi ministre yoo xam ne maa ngi leen di gërëm bu baax den di sant ci turu donc Union africaine comme ni ma ko la waxee léegi mais ci wàllu expert yi fi teew nekkoon nañ diggante démb ak tey fukk ak juróomi expert yoo xam ne seen xel ak seen xalaat dafa màcc rek ci vaccination ak vaccin